man la Papa Moussa Diagne gérant Athéna construction groupe mooy entreprise bi gagné projet bi moo war a tabax brigade principale bu gendarmerie de Niakhène léegi comme tey liñ fi indi mooy l' de chantier tout ce qui est siège délimité bâtiment bi génne ko bâtiment bi nag c' est bâti sur une surface de cent sur cent environ un hectare léegi nag euh, façade bi moo nekk nii façade principal bi façade principal bi aménagement euh, ba kii yaa ngi nii euh, bureau yi tout li nga xamante ni comme brigade territoriale dina ko soxla aménagé nañ ko de telle sorte que ni bureau yëpp ñoom am nañ ko nécessité yi ñuy soxla yëpp mi ngi ci biir am na euh, bureau gendarme am na am na am na ay commandant de brigade yooyu yëpp mi ngi ci ak ay toilettes versaires léegi nag c'est un projet boo xamante ni war nañ ko réaliser sur une durée de six mois mm-hmm. incha allah entreprise bu aussi il va elle va mettre les moyens délai yooyu nga xamante ni moom la ñu ko jox dinañ ko jéem a respecté incha allah voilà di ñaan aussi tamit population bi ñu jàpp ci te xam ne lii seen seen yëf la waaw ñu bëri bëgg nañ ko te amuñu ko yéen bu leen ko yàlla mayee donc euh, war nañ see ku si nekk bay sa waar voilà gendre gendarmerie c' est pas c' est pas c' est donné à n'importe mhm. parce que mun nga commencé sax keneen bu la njëkkee tamit mhm. automatiquement ñoom fa la ñuy dem donc ñu ñaan yàlla aussi tamit ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara ci turu sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Ahmadou Silla xam ne mooy chef de village bu Daaru Ñaaxeen bi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi monsieur le maire Serigne Moustapha Sylla ak euh, adjoint bi mu àndal yëpp ak mbooleem conseil yi nga xam ne teew nan ak yi amoon yéene teew waaye di nuyu bu baax sunu kilifa sunu xarit su préfet sëñ Ibrahima sëñ Ismaila si macha allah euh, sunu xarit di euh, sunu kilifa waaye di nuyu moo commanda juuf ñu koy nuyu bu baax di nuyu sunu euh, xaritam bale mu àndal muy Moussa Fall di ziyaare baax sëñ Diagne mi nga xam ne mooy euh, ki waral liggéey liggéey bi ñaan yàlla rek mu bañ ko def fii fi njaañeen <laughs> waaw gaaw ko matal ko ci délai yi maa ngi wax na ci kàddu euh, chef de village sunu sëriñ sëñ Ahmadou Silla kàddu yu gàtt-gàtt kàddu yi kàddu yi cant la yoo xam ne da leen koy delloo yéen ñi nga xam ni yéen a fi amal lii nii sëriñ bi nee na yéen a ngi koy sant waaye moom mooy walbatiku di leen santaat ndax dafa jàppe njaboot gi ci nekk gi nekk ci commune Ñaaxeen gi yëpp ak njaboot gu boppam bu ko mënoon mooy taxaw kenn ku ne ci buntu këram di la aar di la sàmm ba nga nekk ci sécurité comme mënu ko nag yéen ñi nga xam ni yéen ay ndawam yi ko war a teewal ci kër yi waral leen a aaral moom nee na waru garab la def te mooy lii moyen yi tax ngeen mën koo amal mu def ko ni nii mu ko defee nii te loolu nag monsieur le maire wax na ko léegi euh, moom ku ko xam ci taxawaayam ci loolu nga ko xamee ndax mbooleem li nga xam ne moo nekk ci ay loxoom ñi ci aajewoo te am xaq ci yot jot ci saa suñ ko ko laajee day daal di yomb lool ni nga xam noonu la yombalee site bii nii yaakaar naa li ma wax ñi ci jataay bi ñëpp kenn ku ci ne mën nga mat nga ko seere loolu nag ñu ngi ñaan suñu borom yàlla gën koo yàggal ci kanam njaboot gi waaye gën koo may tawfiq gën koo may njaboot gu ko déggal nga xam ni lépp lum ni waaw ñu waaw ndax lii nii lépp njaboot gu ko déggal la ginnaaw maire bi mu ko woowee guddi la mu ko bu subaa na nga ñëw kon amul lu muy tiit ci njabootu boppam amul lu ci contestation yi am ëllëg naan lim def ak lu mu xam na ni ñi ko jiital jox nañ ko seen baat moom tamit li tax ñu jox ko seen baat mooy mboolem li ci loxoom da koy teg ci aw yoon kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaan suñu borom yàggal ko fi eh, sëñ bi daal li ma waxoon ci ay kàddu gudd na waaye mm, xëy na làmmiñu eh, wu ñàkk a jub moo ñu jàpp waaye nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di ñaan liggéey bi nag egg ci jàmm mu ñëw jiite waat immigration bi ñu amal yeneen bâtiment yi am ci biir mu ñëw jiite waat bi ak mboolem yi ñi nga xam yeneen ko àndal yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. tey ñu ñëwoon fi ànd ak euh, monsieur le sous-préfet de Niakhène le commandant de la brigade de Pekes euh, l' entreprise Athéna euh, Pape Moussa Diagne ñu ko jiite ñu ñëw war a liggéey gendarmerie bi Serigne si la mooy le chef du village moo joxe site bi nga xam ne ci la ñuy defar gendarmerie bi monsieur Fall moo ñuy jàppale chef CADL vraiment ci délimitation ak tout ce qui est plan Euh, monsieur Serigne jeng le premier adjoint ak population euh, commune bi yëpp xam naa ku ci nekk mën nañ jaar ci sa tour pour présentation bi monsieur Diagne ànd ak ay équipe également ñu ñëw pour def implantation bi tàmbali tàmbali liggéey bi euh, lu jiitu tey jii nag projet bi liggéey nañ ci daanaka lu jege at ndax ni ko Diagne waxee gendarmerie mënu ñëw tëb tëb rek ñun ci commune Niakhène ne dañuy taxawal suñu gendarmerie dafa am nu muy tëddee ci réew mi dafa am ñu ko yore xam fu ñuy war a implanté wu ak fu ñu warta implanté wu ak yan norme la ñun li ñu mënoon rek mooy wax suñu bëgg-bëgg euh, population bi yàgg nañu jàmbat insécurité moo xam vol de bétail la moo xam agression yi la toute forme d' agression nag ak yooyu te comme dañu dénk commune bi eh, loolu doonul ne askan wi kat da ngay ñëw jàppale leen ci njàng mi jàppale leen ci euh, éducation jàppale leen ci santé donte sécurité du compétence transférée waaye sécurité mooy njëkk ci doomu aadama doomu aadama lu mu am te amul sécurité rek amul dara kon ñun bu ñu ñëwee doon doomu gox bi euh, population yi am yaakaar ci ñun dénk ñu seen baat danañ leen doxal ba ñu mën a am sécurité ba nga xam ne bu ñu tëddee danañ mën a nelaw suñu jógee di dem di liggéeyi di yëngatu seen xel dina mën a dal ci loolu nag lañ commencé def démarche yi ak euh, les autres autorités de la gendarmerie wax dëgg yàlla ba ñu am agrément am euh, seen aval ne ñaaxeen mën nañ fee def brigade territoriale de de gendarmerie ku nekk xam na ne état yéene na am na yéene bëgg na waaye euh, capacité bi doole ji matewul fépp li ñu ko waxee nag te ñun suñu bëgg-bëgg la ñu ne ah ñun tamit kat nañu góor jéem a def dara kon ci suñu budget am na loo xam ne état danañu koy jox lu ñuy wax fonds d'investissement fonds d'équipement d'équité territoriale ñu ne kon at mii ñu nekk kat muy 2024 nañ 2023 nañu takk suñu ndigg daan nañ tabax ay salle de classe daan nañ tabax ay euh, magasin de stockage daan nañu miire ay euh, ay école kon nag sécurité bi kat yitteel nañu nañ takk suñu biir yooyu ñu xaw ko aj te année bii li ñu am ñu consacré ko def ko ci gendarmerie ci noonu lañ wax bi ñu joxee seen action waa gendarmerie ñoo defar seen i plan ñun am nañ parcelles yu ñu ko mën a def am nañ terrain bi defaral nañ ñu plan ñu dem nag defar la suñuy devis ne kon gendarmerie bi kat lii la ñuy coûter nañu jël li ñu am ci budget état jox ñu ko booleeg li ñu amoon suñu li ñu moomal suñu bopp ñu consacré ko ci tabax gendarmerie bi gendarmerie bi nag ñetti batiment lay doon wala ñaari batiment ak mur de clôture li wax batiment administratif mooy bureau yeeg bureau commandant bureau euh, gendarme yi euh, cellule yi yëpp daal mu ne su koo wax ndax dafa sécurité dafa am nu muy demee waaye daal li mu li ab poste de gendarmerie war a am yëpp mu ngi ci ñoom ñooy defar plan yi ne poste bu normal kat nii la war a tëdde yii ak yii moo ci war a am ñu jox ñu ko après ñu defal suñu devis defal appel d'offre entreprise gagné ñu ñëw tey di def implantation bi ren nag lii tey jii nag batiment administratif la ñuy def suñ fa jógee danañ def logement yi parce que euh, poste gendarmerie doonul sama bureau ba ma yor wala mairie ba xëy si liggéey si wàcc dem ñibbi sama kër nekk sama njaboot heure bi jot ma ñëw liggéey si waat comme man nañ leen a soxla jamono ju nekk fa ñu nekk dañ faa war a féete kon ñoom foofu la ñuy loger dana am beneen batiment yoo xam ne ay logement lay doon ñi nga xam ne ñoom lañu indi pour ñu war ñoo aar war a assurer suñu sécurité ci biir poste bi la ñuy dëkk loolu tamit dafa ay bâtiment yoo xam ne moom la ñuy wax euh, euh, les logements wala les dortoirs wala ñoo ñoom seen lu ñu ko tuddee ci seen langage boobu tamit également euh, dinañ ko defar nañ plan yeeg yëpp moom it dinañ def appel d'offre euh, entreprise bi ko gagné ñu ñëw ñu liggéey ko waaye daal dañ ne tey nañ tàmbalee ci batiment administratif foofu la suñu doole toll bu ëllëgee lu njëkk am yamale ko ci logement yi bu fekkee mën nañoo boole logement yi ak ak euh, mur de clôture bi ñu def mur de clôture bi li ñu wax tamit suñu góorgóorloo ba tabax yooyu yëpp te état waroon def lépp lu doon équipement lépp lu doon danañ ñu ko indil lii daal tey monsieur le préfet loolu moo waral jataay bi di leen tàllalaat loxo yéen a ngi sax ci di ñu jàppale ndax lii yëpp bu mënee am euh, seen loxo dugg na ci ndax am na am na am na renseignement yoo xam ne yéen da ngeen ko am wala wala wala ñun duñ ko am wala yéen yu ngeen di jàllale te ñun duñ ko yëg su fekkoon defoon nañ suñu demande te yen ñu laaj leen ngeen ne ah foofu warta am gendarmerie warta ki kon xëy na du am waaye jàpp ngeen ci dox ngeen ci ànd ko ak population bi ba lii mën am tey kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, waaw mën nañ koo wax euh, parce que comme appel d'offre ouvert la woon montant bi 57 million la maanaam juróom fukki millions ak ak ak ak ak juróom-ñaar loolu mooy montant marché bi. bâtiment euh, administratif yi kese bâtiment administratif kese. mur de clôture bokku ci logement yi bokku ci mais bâtiment administratif yi kese muy bureau yeeg ak lépp lu ñuy soxla comme comme comme équipement pour liggéey mooy bâtiment administratif bi 57 millions la juróom fukki million ak juróom-ñaar. yoo xam ne nag ci budget commune Niakhène la jógee du état moo ko financé mais comme ni ma ko waxee léegi rek ñun ñoo takk suñu biir ci suñu budget xool li nga xam ne mënut a ñàkk ci investissement ñu def loolu li ci des nag ñu ne nañ góor góorgóorlu nag jàppale population bi insécurité ba bari na sécurité yitte woon nañ ko kon ñu ne nañ ci taxaw jël suñu doole jëpp nag ñu def ko ci bâtiment administratif wala def ko ci poste gendarmerie bi ba mu mën a taxaw ni ñu ko defee tamit ci euh, ni ma ko waxee léegi. du Ismaïla Sy nekk euh, adjoint sous-préfet bu arrondissement bu Niakhène. teewal fi kilifa bi muy sous-préfet arrondissement monsieur Daouda mbay moom moo amoon yéene sax ñëw nekk ak yéen fii nii ci lansement travaux construction gendarmerie bi kaddu gi nag du ci duñ ci sori pratiquement maire expliqué na lépp mais auparavant dañuy remercier population commune bu Niakhène bi yëpp di ci jiital nuyoo yi ak remerciement yi monsieur le maire de la commune monsieur Moustapha Sylla di ci nuyuwaale adjoint maire yu fi nekk yëpp di ci nuyuwaale aussi chef de village ak imam bi mais aussi di wax aussi monsieur Diagne moom mi yor entreprise bi war a tabax euh, gendarmerie bi ñu koy wax entreprise Athéna donc ñu leen koy wax ni bisimilah aussi ci arrondissement bi di remercier waale aussi gendarmerie ak seen teewaay donc euh, ñoom lañ ko defal mais état du Sénégal aussi lañ ko defal kaddu cant la cant gi mooy dañuy remercier d'abord ki jël alalam delloowaat ko état du Sénégal muy monsieur Serigne Ahma wax dëgg yàlla acte de citoyenneté la def beneen mbir bi aussi ñuy remercier waale commune ñaaxeen bi yëpp ci kaw ñu siy jiital euh, monsieur le maire ndax lii ñu def nii état du Sénégal lañ ko defal donc état bi moo waroon jël alalam tabax gendarmerie fii nii. mais ñoom ñoo ko supplier remplacer ko jël seeni alal maanaam bloqué yenn secteurs yi comme éducation wala sante lu fa waroon dem yëpp ñu ngi koy dajale pour mën a construire gendarmerie bi fii te lii aussi doléance bu yàgg la ci population bu Kajoor rawatina aussi commune bu Ñaaxeen donc fekk nañ fi lu bëri ay vol de bétail fekk nañ fi aussi ay cambriolage ay bitik fekk nañ fi aussi ay violence yoo xam ne bu sécurité amul loolu mën na wéy ba yàqal aussi ci liggéeyu nit ñi si seen déplacement ak yeneen ak yeneen ñoom ñu defoon ko priorité ak ndimbalu aussi sous bi ak état du Sénégal ñu dem ba yàlla def ci sutura loolu tey ñu ñëw fii di def lancement bi may wax ni aussi commune bi ak population bi yëpp ne projet bii ni dafa jaar procédure normal fépp fu mu war a jaar lu état bi santoon ñoom jaaral nañ ko foofu loolu moo tax da yàlla sottil li ñu indiwaat ko fii ni ñu war a def lancement bi nii donc loolu di nekk turu état du Sénégal turu sous-préfet arrondissement bi ñu ngi remercier commune bi yëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp ñu ngi leen di remercier sans exception mais di beral nuyoo ki jëkkati alalam wax dëgg yàlla delloo ko commune bi delloo war ko encore état du Sénégal pour ñu mën a samp fi sécurité bi donc gendarmerie ñun xam ñu rôle bi nit ki bu amul kaaraange yenn yi doo ko mën a def donc urgence la mu nekkoon doléance te yàlla sottil ko loolu aussi ci ndimbalu taxawaayu maire noppalekul guddeeg bëccëg mu ngi ñuy woo téléphone yi mu ngi dem ci bureau yi ba yàlla sottil ko fay donc aussi moom dañ koy delloo njukkal di ko remercier aussi ci taxawaayam bi. beneen mbir bi dañuy remercier aussi waa gendarmerie ndax ñoom lañ ko defal gis nañ aussi poste de Pekes bi nu mu mel ni éléments yi xaw na manqué mais fu ñu leen yeewee muy guddeeg bëccëg ñoom franchement seen intervention intervention yi rapide la malgré. seen disposition ak yooyu yëpp nañu nekk mais fu ñu leen wanti woowee ne leen lii xew na muy guddi muy bëccëg muy naaj muy taw ñoom lañ leen fay gis donc aussi gàcce ma ci taxawaayu gendarmerie Pekes bi te ñu ngi couvrir arrondissement bi aussi comme ni mu ko waree monsieur le maire junj na léegi gendarmerie ci renseignement lay liggéey bu amul renseignement du mën a sotti nit ki nag man nga dénoncer parce que boo gis ñaawteef buy am muy sa nijaay di ko def wala sa mbokk di ko def wala sa dëkkandoo nga nëbb ko dama defee ne yow aussi nga yaa ngi jàppale loo xam ne mën na yàq dëkk bi mën na yàq arrondissement bi mën na yàq encore état du Sénégal parce que genre safara bu ndaw la day law rek ba finalement aussi mën na indi jëye donc genre yu mel noonu dafa laaj aussi nga dénoncer chef de village yëpp jox nañ leen numéro gendarmerie jox nañ leen numéro sous-préfet nit ki mën nga boole fekk doo ci yëg musul du sous-préfet du mari du keneen nit ki boo waxee kenn musul joxe source fu ñu ko jëlee dañu wax ne lii xew na rek fu ñu ko jëlee moom doo ko dégg ñun ñi di ko expliquer donc dañuy sensibiliser aussi population bi lu mënti xew ba ci biir néeg ba ci biir kër yi nañ koy wax buñ ko waxee rek amoon na am solution di ci am ñu si wàccee mais saay bu ñëwee aussi waxtaan la ñuy jiital ñu lal ko te loolu buñ ko jiitalee toujours ay solution lañ ciy gis donc ngeen jàppee ne aussi gendarmerie du ennemi mais seen collaborateur la pour jàppaleen aussi ci kaaraange ndax boo leen jàppalee rek seen bopp ngeen jàppale di dellu nag sama kàddu ci monsieur Diagne di wax ni aussi chance la yàlla moom la dogal mu gañee projet bi marché bi ni donc moom am na ñeneen ñoo xam ne éliminé nañ leen donc loolu yàlla moo ko suturaal mu gañee ko mais aussi dañ ko si ñaax xam nañu aussi entreprise bi entreprise bu mag la xam nañu aussi ay travaux yu mu liggéey yëpp def nañ ay enquête mais dañuy wax ni comme délai bi ni toujours luy indi problème ci entrepreneur bi ak contractuel bi mooy non respect des délais lu ci bëri bâtiment yi day taxaw mais durabilité durée bi loolu mooy faral di indi ay gàllankoor donc ñu koy ñaax ni ci six mois yi mu wax ni comme que li urgence la ñu fexe aussi ba mën a respecter délai yi nga xam ne dans six mois dinañ fi dellu si waat boo xam ne pour inauguration